waaw dëccee ngi noonu dëccee noonu soog a ñëw waaw waaw. Nous pas en crise, mais en réalité c'est une crise provoquée. Parce que tout concourait au début campagne aujourd'hui sans vraiment de difficultés. Le président Macky Sall qui régulièrement admis par le Conseil constitutionnel et ce titre de président de la République, c'est de ce même Conseil qu'il le tire et par conséquent, il doit nous permettre de faire notre campagne. Et nous l'avions dit, nous sommes dans les rues aujourd'hui pour démarrer notre campagne. Après ici, nous allons sillonner d'autres artères de la ville et nous allons également sillonner le, Sénégal partout où les militants les sympathisants nous attendent image bi ñuy gis honoré Sénégal ndaxte lii xamuñu ko crise bi mu créer crise bi nga xam ni moom moo ko créel boppam mais ñëpp tey d'accord na ni campagne électorale war na tàmbali et tey candidat yi nu doon di vingt légitimité bi nu am pour def campagne conseil constitutionnel moo nu ko jox comme moom ni ko conseil constitutionnel joxe légitimité mu doon président de la république donc lu la conseil octroyé ñu nangul la ko fexeel ba bu ko octroyé ñeneen nga nangul leen ko moo tax ñu génn def suñu campagne on va poursuivre ça dans les autres acteurs de la vie. mais par assemblée nationale mais dara du xew. assemblée nationale parce que tout simplement lépp li ñuy def du yoon. donc nous on va poursuivre la tournée. on l'avait dit que daan fi ñëw tey ñëw nañu dañuy continuer tournée un du biir Sénégal la parce que déjà euh, la République ce la présidentielle. mais la suite mooy on va se concerter tout à l'heure bu ñu paree tey daanu gisee concerter waat comme on l'a fait hier pour poursuivre un peu suñu campagne on est en campagne c'est tout. aussi simple que ça. waaw gis dégg ngeen ko Déthié Fall son dernier moo on en campagne nee na ñu ngi si campagne effectivement waaw moom daal teewaayam gis nañ ko fi ak Thierno Alassane Sall voilà.